nay yoo xam ne ci kër gi di la Soleil dañu leen a tegoon loxo tax na sax démb journal bi di la Soleil génnul mu nekk mbir moo xam ne mbir mu indi ay jafe la ci direction bu Soleil maa ngi ci yéenekaay gi di réew mi quotidien yéenekaay gi di Walf Fadjri xëy duñu xibaar naan ñu askan wi nga xam ne ñoo yeewoo ci capitalu Sénégal di Ndakaaru ñoo ngi ci musiba ba kumba li ko waral mooy taw bu bare bari moo wàcc ci Ndakaaru tax na sax am na ñu bari ñoo xam ne ñàkk nañu ci seen bakkan waaye ci biir Sénégal gi ndax ay fukk-fukk ñoo ci faatu diggante Dakar Mbuur Mbour Fatick ak Fouta asamaan si mën nañoo wax ne moom màbbu ci Sénégal ndax ci Fatick am na fab accident bu méttee métti état bu Sénégal ministre de l'intérieur daal di wax ne déclenché nañ li nga xam ne mooy plan Orsec ngir nag jàppale ñi nga xam ne ñoo tëmb ci ndox mi yéen kay gi du l'observateur xëy di ñu xibaar naan ñu kaaw dëggantaan moom moo am ci Ndakaaru ginnaaw taw bu bëri boo xam ne moo fi wàcc ci corniche ouest bi am na ku fa jot ñàkk bakkanam dem beeg dund nag musiba gu métte métti yéen kaay gi di enquête xëy duñu xibaar naan ñu ci ndakaaru lu toll ci cent vingt six millimètres ndox moo fi daal di wàcc mën ñoo wax ne taw bi kaaw dëggantaan la indi nag fi nga xam ne mooy dakaar fu ci mel ni Grand Yoff di Parcelles assini di ngoor di Corniche Ouest di ba fii fépp askan wi nga xam ne ñoo fa yeewoo démb dañoo daal di tëmb ci biir ndox mi yéen kaay gii di bës bi xëy fësal ci xëtam mu njëkk nee na taw bu bari bi nga xam ne moo ci ndakaaru ci askanu Sénégal yéen kaay gii di fu nee na taw bu baree bari moo taw démb ci capitalu Sénégal askan wi nag daal di tëmb ci ndox mi bëri nay quartier yoo xam ne jaxanama la ñu dund niki démb fu ci mel ni Wakam di Mamel di Yoff di zone de captage di Grand Dakar di Grand Yoff surnal bi nee na ci corniche ouest bi am na kenn koo xam ne dafa daal faatu yéen kaay gii di Vox Populi nee na ajjumay démb ji ajjuma la joo xam ne ju lëndëm la ci Dakar ndox mi nag moo jël li nga xam ne mooy pouvoir bi ndax lu ci cent vingt six millimètres cim ndox la ñu gis démb ci capitalu Sénégal ci tunelu Mermoz bi am na ko fa ñàkk bakkanam njiitu réew mi di président Macky Sall di massawu askan wi daal di déclenché li nga xam ne mooy plan Orsec yéen kaay gii di vingt quatre heures xëy di ñu xibaar naan ñu ndakaaru ak lu jëm ci wàllum assainissement biñ ciy wax ba léegi nag njaw ma ngi woy di desu xambin njiitul Pastef di Ousmane Sonko ci journal bi di vingt quatre heures nee na mbënn mi nga xam ne moo dellu siwaat ci àjjuma ji tey ji ci ndakaaru loole lépp li ko waral mooy ñi nga xam ne ñoo ñu jiite seen ñàkk xam pàcc yi nga xam ne moom la ñu dëkkee ak askanu Sénégal yéen kaay gii di source a moom xëy di ñu xibaar naa ñu askanu ndakaaru démb dundu nañ loo xam ne dinañu ko yeex a fàtte Sud du Quotidien dikk ci taw yu bari yi ak état bu Sénégal bi nga xam ne moo daal di déclenché plan Orsec bëri nay quartier ci Dakar yoo xam ne demb dañoo tëmb ci ndox mi fu ci mel ni bassin bu zone de captage moom dafa daal di fàq tax na ndox mi munta dem munta dikk isunu ndox bi nekk zone de captage dafa daal di taxaw ñi nga xam ne ñooy waa Sénélec ñoom jamono ji sax bëri nañu ay gox yoo xam ne léegi ñoom nee nañu taw bi inondation yi moo tax courant bi munta am yéen kaay gii di Quotidien nee neexul ba neexul waaye Dakar démb souffrir nañ bu baax a baax dund nañu méttati Ousmane Sonko yàq musiba ak mbelengaan Macky Sall ak ñi mu àndal yéen kaay gii di Rewmi Quotidien daal di wax ci élection législative yi nga xam ne moom la ñu génn ba léegi njaw di wéy di desu xambin journal bi nee ñi nga xam ne ñooy coalition Yewwi Askan Wi ñoom nag dugal nga xam ne ñooy juróom-ñaari charge ci nekk ci conseil constitutionnel ñoo nekk ci pression bu méttee métti ba tey ci lu jëm ci élection yi nga xam ne moom la ñu génn yéen kaay gi de la turbine xëy fësal ci xëtam mu njëkk nee na coalition wàllu Sénégal ñoom démb janoon nañu taskatu xabaar yi waaye nag ñoo ngi woo opposition bi ñoom ñëpp ñu daal di booloo nekk benn yéen kaay gi di 24 heures gi Mari Sagna moom nag daat nay dànkaafu Macky Sall nee na ko nag amul lenn loo xam ne mën naa taxal sama casier ba ñu mën a tilimal sama ndomba tànk député bi amul lenn loo xam ne war naa mën a tax du ma nekk député gi Mari Sagna ndogalu ki nga xam ne moom mooy njiitu réew président Macky Sall yéen a kaay Vox Populi ba ci lu jëm ci élection yi askan wi nga xam ne ñoom nag nee ay marche contre Ousmane Sonko ak Déthié Fall ndax ñoom nee nañu Ousmane Sonko ak Déthié Fall dañoo saaga askan wi yeewoo ci lu jëm ci sàcc ay élection tax ñoom nee nañu daal mbir mi force ñu yóbbu ko fa mbax na doone benn élection yi nag ñi nga xam ne ñooy wax APR ànd bi ñu ànd ñoom ak benn bokk yaakaar doone waar ndax mën nañoo wax ne APR député la jël